ak yi ngeen gis ak yi nga xam ne peut-être gisagu leen ko te ñu di ko xalaat te li si ëpp si yéen la gis ngeen ne démb dañ doon def virement de crédit autorisation spéciale aussi li si ëpp si li liñ si doon def dañu prévoiroon pour tabax école primaire bi xam ngeen ne suñu yéene tey Moy tabax stade municipal tabax dama andi dañu dañu ko jël pour tabax ko mais mënuñu tabax stade bi tant que parce que fiñu am mu mën abriter stade bi moy fi nga xamné fa la école primaire bi nek fofu si sali fofu rek la am fu mën abriter stade mënoo toj école te tabaxoo école gis ngeen né ren dañu prévoiroon 100 millions pour tabax école bi bi lancé marché bi ki gagné marché bi mu ngi marché bi mu ngi toll si quelque pour mën a tabax école parce que du bëgg vraiment buñu ñu bay tabax ñu tabax école bo xamné ku fa ñëw xamné vraiment école bi élève bu fay jàng dootoo jéggaani dara manam sa bop du metti ñu naan nañ ko yóbbu ci dispensaire dañ bëgg école bi lepp nekk lepp nekk donc on est obligé ñu am ay répliques yu ñu prévoiroon pour def ko ñu bayiko pour mun a tabax école bi xëy na bala déwén mu paré inshallah ñu mën attaquer tabax stade municipal bi c'est pour qui c'est pour vous kon dañu bëgg ngeen bàyyi xel ne ñun luñ fiy def rek c'est pour municipal gis ngeen ko donc mais travaux tant que tabaxuñ école primaire bi primaire innover gis ngeen ko gis ngeen ko ni lañ a day am terrain de sport si biir day am li lañ doon def virement de crédit démb 200 et quelques millions pour si at mi incha allah balaa ñu man ko terminer ba bu déwénee suñu xel nekk si naka lañuy def pour commencer construction stade municipal bi donc c'est pour vous gis ngeen fi li ñuy li ñuy idée bi ñuy am fi gis ngeen si miise bi pour tourner dem ñax-ñaxal gis ngeen ne foofu rek lañu am si benn espace boo xam ne war nañ ko mën a liggéey ba doomu Saly yi ku bëgg a féexlu ku bëgg a noppaleku ku bëgg a détente wu nga man fa dem su ngeen jëlee lii plan bi c' est pour loolu donc ngeen japp ne ont ñeenti procès yi nga c'est pour les jeunes qui ngeen ko lycée moderne le lycée moderne de Sali. gis ngeen ko ni donc jeune. na ne tay jeune yi d'accord mukk man ak rêve yi ñu am pour yi bëgg a déggaat yi di naan gis lool mom vraiment des fois daf may daf may jaaxal mané nak kon effort yi yep, mais finalement da ngay dem ba sa bop day tëj. am ay ay ambition yo xamné japp nañ né toujours pour fexé ba mettre leen dans les bonnes conditions comme yeneen jeunes yi nga xamné dañu nekk ci yeneen capital yi parce que man sama rêve nekku rek si développer Saly mais sama rêve moy def Saly commune de référence dama bëgg mu nekk té à l'heure actuelle peut-être ñi koy suivre bari na ñoo xam bu ngeen di diko ko déglu dañuy jël référence ci Saly parce que nak c'est c'est en 2009 lañ ko créé je pense que 2009 ak légui dama né buma ma ci bilan wu ñu tabax li ci fonds propre rek kessé rek amna bilan bu ñu am mais doyloowuñ ko dañ ko xépp té ci bilan yi rek lañ dëkk kon na ngeen gorlu ngeen jappanté